jërëjëf sëñ bi kàddu yi rafet na macha allah euh, comme je l'ai annoncé tantôt donc on va euh, donc euh, remettre officiellement les photos de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul à l'ambassadeur du Sénégal en France son excellence la Hadji Maguette Seye et ce effectué par maître Étienne Debec c'est l'ambassadeur monsieur Debec Donc, voilà, voilà, pour très heureux de vous remettre aujourd'hui euh, cet ensemble de photos qui retournent euh, au Sénégal, euh, la belle fin d'une histoire commune. Ah, et merci beaucoup. Je vous remercie, euh, Mathieu Lebec et votre maison. Sénégal, son Excellence Macky Sall, au nom de l'ensemble de l'équipe diplomatique et consulaire du Sénégal présente ici en France, recevoir ces photos en présence du recteur de la Grande Mosquée de Paris. président Macky la voix collectif la communauté mouride qui a tout mis en œuvre pour acquérir ces photos, les restituer à la communauté mouride, mais au Sénégal, parce que c'est un patrimoine du Sénégal, c'est ce qu'il m'a dit lorsqu'on a commencé le travail, c'est un patrimoine du Sénégal, mettez tout en œuvre pour que ces photos reviennent au Sénégal, ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est avec donc honneur que je remets aussi ces photos au nom du président de la communauté sénégalaise, de l'ensemble de l'équipe diplomatique ces photos aux représentants du Khalif général des Mourides, Serigne Chérif Anta Madické ñu ko koo laaj leen wax dëgg yàlla ñu toll nii ñu ko baax ñu bëgg leen ñu gën a wooyee dañu mel ne station ak mbokku collectif yëpp delluwaat naa ci moom tàgg ko ne ko di mu fi ñëwoon ñu ne doon ci yow ñu doon mel ni ñu daal di xaar suñu borom def na ci toog yëpp ba war nañ toll ci mën sax dañu bëgg ñu teel ma teel ñu ñaanal ma jëm jëm jamono alhamdulilah ñu ngi sant bu baax di sant ñëpp nga xam ne dafa réglé woon jàpp nañ ci liggéey ba yàlla dogal tey jii mu egg fi mu egg di ñaan yàlla dafa ñu def ci barke yi ko ñu nekk di teewaay ci liggéey baax yi yëpp Thank troisième. Merci beaucoup. Merci.

ñu koy ñu koy xam ne mooy wax Thank you. Bunlar?